sëriñ bi doon wax ne yeggali naa fa sama borom mooy jox naa sama borom tawxiitu mboolem wéetal gu ko yónentu moso wéetal yónentu bu yàlla moso yónni wéetal gam doon wéetal boromam wéetal gu toll noonu man kenn rek jox naa ko sama borom ba ma nekkee ca tukki ba jox naa ko ko moo tax mu ne xat awsaltu jox naa mooy yeggali naa ilaa ilaahi jëmee ci sama borom laahi te mooy yàlla tawxiida ruslihi tawxiitu yonentoom ya la dun wasaltu ba ba ma ko ko joxee mooy ci tukki ba daal na loolu nag kenn nit ku mel ni man sëñ Tuba la yonent ya wéetu loon seen borom yow kenn nga mën ko wéetal yàlla kon loolu nag saali ko loolu faddullaahi nga réelig yàlla ñeex ma amul morom allah moom yàlla moom nga xam ne rëbb yi mooy sama borom wala ilaha amul benn buur ba yow jaamu jaamu gu du jur njëriñ ñàkk gaa jaamu gu du jur lor ilallah ku dul yàlla kenn nit nga xam ne du ab yonentu waaye yàlla may na ko loo xamee ne niiw na mu may ko kenn su fekkee tawhid ga yonent yi amoon yëpp moom kenn jox na ko yàlla loolu kon gëneelug yàlla kon bu day wane yàlla mooy defal ab jaamam lu neex mooy jagleel ab jaamam lu ko neex tam moo ko ko jagleel ndax walaahu yaxtasu bi rahmati man yasaa walaahu soo ko lil asim kon yàlla mën na ko defal jaada tabe na mooy may na lii ñal ma al wahaabu yàlla muy mayakon bil maraami càkkutéef la wa neex ma eskay wa neex ma amul maram sol jalaali yàlla muy borom màgg gi wal ikraami ak terla gi yàlla mu mi may bi may na ma la ma doon wut ca moom yëpp càkkutéef lépp may na ko amul morom eskay baax na moom yàlla mi def loolu may ma ko mooy borom màgg tey borom tiraange yi tey borom terla te moo ma ko may radiitu gërëm loo naa anhu walis ko wa huwa moom it kat raa di gërëm la an nii ci man wasaane nii ñongal na ma an jumlatil axraadi walis mboolem axraad yi nee ne yàlla gërëm na ma man ma gërëm ko maanaam dama ko gërëm moom it mu gërëm ma kon sëriñ bi gërëm na yàlla yàlla gërëm ko loolu radiyallahu anhum wa radu anhu loolu moo dox diggante suñ borom ak saxaaba yi ak diggante yàlla ak saxaaba yi diggante saxaaba yi ak yàlla gërëmante googu suñu borom ñoŋal na ba lépp luy axaraatu luy gaar doomu aadama xëyti tawat yeeg manki di yeeg yenn yuy dal nit ki feebar yu nit ki di feebar ba ay cëram di dagg yooyu mooy axaraat mooy yi nga xam ne day gaar nit ki suñu borom ñongal na ma ba yooyu yëpp musal na ma ca gis nga ba tey loolu yëpp day dañ koy dugal ci saalika fadlullahi nga nilu yàlla lu mu ko defal la te yëpp da ngay jàng yoo xam ne maanaam ku dul yàlla dalay dal sëriñ bi yàlla musal ko ci bi yëpp suñu borom musal ko ci wa saana nii ñongal dama an jumlatil axraat yi wulis mboolem axraat yi mooy yi nga xam ne day ta doomu aadama tawat ak tayal ak sonn ak yëpp nga ceex tabaarkalla boo ko lim du jeex lahu ñeel na ko yala xitaab yi sama waxante ak moom wakkafaani te fegal na ma kulla man képp koo xam ne laa yaxbudu du jaamu allah yàlla waraada te na li ñeel ma as saman mboolem ñun jamono saman maanaam li ñu jël mooy ahlu saman ay ahlu saman yàlla moom rek lay communiquer di waxante ak moom ndax bind gi mooy waxante ak yàlla ji dama koy wiital jox naa ko nangam mu mel ni yow mi jëndoon sa crédit rek xam nga boo jëndee crédit wala nag dëgg-dëgg nag tuddagul woote kañ lay tudd woote muy waxante ga li ñuy wax haatif haatif mooy di wax ak koo xam ne yéen ñaar yéen a ngi déggandi ci portal waaye seen jëmm yi jàkkaarloo ko moo tax téléphone bi mu génnee ñi njëkkalante tuddee ko haatif kon baatab haatif moo fi njëkk téléphone dégg nga kon ki ngay bind di jëmee ci moom am looy dagaan ci wala benn mu defala dara nga koy sant kooku xitaab la tudd muy discours ay discours bu am sens. mooy faslal xitaab wax ju fasaxa loolu kon moy xasida yi yàlla moom kot lay waxante ka fegal na ma képp koo xam ne nangut koo jaamu waaye mboolem ku ngeen gis ci jamono rek Sëñ Tuubaa ne ne yàlla tàggatal na ma kookee moom mënut maa lor te man mën naa ko jëriñoo nafa ani jëriñ na ma wala mu yëduru ni te duma lor ko dégg nga nga nafa ani jëriñ na moom yàlla wala mu yëduru nii te mosut maa lor wala yëduru nii te duma lor kulli sama lépp awala aji wékk laa ko alay ci yàlla kon lii moo tax mën a boo jëlee sa lépp yëg ko yàlla yàlla du la lor te du la mos a lor waaye saa boo jëlee sa loxo yi jox ko yàlla jël sa bët yi téel ko sa bopp yàlla ci lor lay dëkk rawatina nit ñi boo jëlee sa lépp jox ko yàlla nit ñi duñ la mën a lor te yàlla du la lor. akkaram ni teral na ma albaq yàlla mu fee sax ma kaw bilaa ihaana ci lurut ak doxadal wala sa yan xoon yi te déet du ma jublu mu ko sawool kaxaana borom gisaanukat yi yàlla mi fee sax te du faatu teral na ma te dootuma doxadal xam nga baat ak mooy safaanu tiraanga xam nga bay jàngalu alxuraan di wax ne suñu borom ne na koo xamee ne xasal nañu wërsëgam mu ne ay waay yàlla doxal na ma koo ne teral nañ ko nag ma ngay bàkku dégg nga wa ama isa maftala fa qadara alayhi rizqo fa yaqul yàlla nee na xam ne nattoon ko xasal wërsëgam ma nga njëkkalante naan ay waay yàlla doxatal na ma waaye koo xam ne teral nañ ko ma ngay bàkku naan ay waay fa yaqul rabbi akramani hmm? ah gis nga bëri na koo xam ne saa soo ko joxee tiranga ba mu bëri la rek mooy beew na def na lu ñuy wax beew ma ngay fëgg dënam lu ne mooy li alquran di wax noonu rek wa ma isa mabtala fa qadara alayhi rizqahu fa yaqul rabbi ahanni kala bal la tukrimuna al yatima wala tuhduna ala taami al miskin wa taakulun turasa koo xam ne mooy ñi nga xamee ne gis nga borom milliardaire boo ko doon misaal boo doon xëccoog ñoom af cinq cent mille maanaam yaay mujji bàyyi yow mi amul sax cent mille yaay mujj bàyyi kon di xaalis nuñ ko bëgg nuñ ko bëggee dañuy dem ba mu ëpp leen doole bañ far beewu ci nga xam ne bu ngeen leen xëccoo rek dara yow mi amul xaalis yaay mujj bàyyi ko yow mi amul kon yàlla teral na ma tuddootuma doxadal dégg nga jub lu mukk borom gisaanukat yi mooy ñi nga xam ne bu xaabakat bu xaabakat amoon na ci jamono sëriñ bi ba léegi mu ngi am Sénégal moom bëri na fi jamono yëndu saa sama amoon na fa dégg nga muy alkahana mooy alkahinaatu yi mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy gëmloo nit ñi ne xam nañ lu faddu xam nañ lu faddu waaw loolu ko gisaanu ko ku ne xam na ko mooy defe naa ne Sénégal moom lu ne am na fi moom ay yàlla yàlla yeeg euh, tabarka la gisaanu ko yeeg lu ne ñuy wax léeg-léeg ñuy wax loo xam ne bi laay la ñuy wax ak la yam ak ay ute yal na yàlla musal ñi si kàcc yi kàcc yoo xam ne te ko ko fenn lu nu tàndal rek léeg-léeg nga gis koo xam ne saa bu waxee mu tàndale mën naa wax tàndale juróom-ñeent waaye billahi fukkeel ba mu ñëw rek mu ñàkk waaye nag juróom-ñeent yi ci biir juróom-ñeent yooyu la nit ñi jàpp ne mooy yàlla ba tax ñii di ko jox seeni xaalis jàpp ne dafa gëm xaybu te fekk day tàndal rek waaye wóor na ko ne xamut ne mbërëb sàngam ak mbërëb sàngam bu ñu bëree kii mooy daan waaye day tàndal rek ba xam loolu yëpp bëgg siiw rek dégg nga dana yàlla musal ci am na siiw yoo xam ne du du jàmm borom de at loo danaa jàng moom yàlla kitaaboo téere bi di alquran maal xalawa ànd ko di ci yëg neexit ga neex jàng waxaada womatal na lii ñam al asraara mbóot ya ci nekk fii tilaaw ci biir njàng ma nee na yàlla danaa jàng tiirim bi ba faw waaye bu koy koy jàng damay yëg xalaawa muy neexit gi nekk ci biir njàng mi ndax lépp doole ci alxuraan mooy nga di ko jàng di yëg ni yaa ngi koy jàng mbir mu ne dañuy wax ne maanaam nga la tax nga koy def maanaam nga di ko yëg moo ci ëpp doole waaw ba ba ci sëy sax boo yëgut bànneex bànneexu sëy daanaka man nga ne yow kon ab tawat moo dal ba jàng alxuraan te yëgoo ci bànneex ak tawat la dal dégg nga booy jàng xasida te ci bànneex lenn lu ci nekk daal lañ ciy séntu mooy xalaawa donte xalaawa yi bokkuñ dégg nga même sax lekk tey boo koy lekk cafka gi moo tax nga koy lekk waaye kenn du suur ab ceeb rek teggi ko te defoo ci rënd defoo ci dara kon lu tax ñu di ci def rënd xalaaw boobu lañ bëgg ci moom kon ki jàng alxuraan dafa xalaaw bu nekk bu nekk ci biir téere bi fii demagul ba yëg ko rek mooy jàngut ko waaye wu matal na mu mbóot yi nekk ci biir njàng gi may jàng alxuraan lam yéen duma jublu mu ko bi man yi ci ak tereem maasa a lépp lu may naqari walay sa yan xóonee te deetu te dit di ma jublu mukk man asa a ku may naqaral maanaam tere yàlla moo tere ci man lépp lu may naqari dootu ma jublu mukk te ba faw koo xamee ne daf may naqara dootu ma jublu ba tey ku may naqara dootu ma jublu walay sa yan xóonee muy man fii mu ne maa ma ak man baaraka barkeelo na li ñan fii badani sama yaram wa ruux yi ak sama ruux wa kaana nekkal na li ñal bil bisri ci mbég wa tasri ak boyal ma defal ma tasrif mooy boyal la yàlla barkel na sama yaram sama yaram yëpp barke wéer kak peleng sama ruux amul ayib bu ci nekk day dund ci waxtu ne ci digganteek sama digganteeg sama borom yàlla daf may nekkal di ma xéwale mbégte ak boyal mu toll daf may boyal moom suñu borom subhaanahu wa taala yaquudu ma xëcc lillahi jëmee ma ci yàlla hibbun ak sopp wa jamal akuk dégg minhu bu bàyyi ko fa moom ilee jëmee ko ci ma man wallahoo ñeen na ko ca dëgg-dëgg neex ma amul morom alkamaalu ak mat yàlla mooy ki mat dëgg-dëgg buñ na mat mooy yàlla ko dégg ñu ne ku mat la rek ci matuk yàlla ga ci la ko yàlla matalee ndax buñ doomu aadama ana baat boo xam ne boo ko mu mer mooy nekkul diw koy nekkut doomu aadama nekkul de ku nekk ku ne lu nekk lu ne ci nekku yàlla ga ca la nekkee kon yaquuduni lillaahi hibbun wa jamaal ilayya minhu wala hoo nixmal kamal yaquuduni dana ma xëcc dana ma wommat dégg nga lillaahi ñeel yàlla hibbun ak sopp wa jamaal ak taar ilee jëm si ci man min hu gu bàyyi ko fa moom mu jëmee ko ci man yàlla moo koy def muy sopp gi ma ko sopp mu sopp ma ak taar bi muy jëflanteeg sama digganteeg moom moo may xëcc ci waxtu ne waaw sopp gi ak taar bi muy bàyyi ko ci moom mu koy jëflanteeg man muy ñëw ci man sëñ Tuuba xam naa ne yàlla ku ma bëgg la kuy jëflanteeg man ci taaram bi la waloo ñeen na ko ci dëgg-dëgg ñi xamul maru alkamal ak mat ndax ñaareel nit boo jëflanteeg moom dañoo xam nit boo jëflanteeg moom rek da nga ko xam waaye nag da nga nit te doo ko xam de léeg nga gis nit naw ko saa boo jëflanteeg moom jéppi ko am ni ko xam ne yaa ngi koy tagg ci télévision yi waaye bi ngeen bokkoon benn kër billahi nga jéppi ko ay mbokkam waxuñ ci moom dara yaa ngi koy tagg loolu sëñ bi nag dafa jëflanteeg yàlla ci gépp côté mu xam ne dëgg-dëgg nag jaamu gi mu doon jaamu yàlla xam ne ne pertuut de waaye bi ko yàlla fayee itam xam ne ne yàlla naxul ko yaquuduni lillahi hibbun wa jamal illa yamin hooloo nixmal kamal moo tax bàkk yàlla de waaw yàlla nag moom saa boo jax santeeg moom raqeek doomu aadama la yàlla bindee noonu tursi sama pakk xañil àddinaas sigi dox sama digganteeg tër-tër yi wala axyaari ak nëx-nëx yi kaw nii mooy doon gi ma doon xadiima sayidil muxtaari liggéeykatu sangub kañu tànn ka sallallahu alayhi wa sallam parce que bi ma am ba lépp li al adnaas al axyaar axyaar mooy nekk ci biir xol ay larxet adnaas mooy tër tër yi tilib tilib yi neen su fekkee am naa benn pakk bu ma koy fompe bu ma koy dindee ci man mooy doon gi ma doon liggéeykatub sangub kañu tànn ka waaw liggéeykatub yonent bi sallallahu bi ma koy liggéeyal moo doon sama pakk mooy sama ngànday sama lépp madda tëbb na mooy tàll na lee ñal ma al muxtaaru ka ñu tànn ka siran mbóot moo xamee ne lam yuraa kenn mostu gis mu mu jox ko xatun mukk li xëyri ñel ku dul man te waloon yuraa dee su ko gis mukk mu di ko jox le xëyri ñel ku dul man yonent bi jox na moom mbóot moo xamee ne mosu ku jëflante kenn moom yonent bi ba jox ko mbóot munu mel te dootu ko jox kenn gis nga ba tey kon lu ko yàlla defal moom da koy dàq ci la la teew lay ñëw lépp lay daq sabbata saxalal na dàkk lii ñeel ma arusoo ko sax sax ka wal yaqiinu ak yaqiin ga wan xaada womatu la lii jëm ci man al ilhamu inki walug yàlla wa talxiinu ak saga sax talxiin mooy sax nee na yàlla saxalal na ma ak sax sax mooy fu wóor buñ na rusux na rasaxa mooy sax ci mbir mooy lu mel ni sax ci sunna wala sax ci xam-xam waraasiquna fil almi ñi alquran di tagg ba muy tagg ne alquran ji kenn mënu koo firi lu dul ñuy sax ci xam-xam ñu ñëw mën nañ ko firi mu ne yàlla saxalal na ma ak sax fu wóor waaye ak yëqin mooy jàpp du fu wóor nga xam ne du ma gam-gamle du ma nattable fu wóor ci laa sax ci dëgg ci laa sax te dama cee am yëqin yàlla ma ko defal waaye yàlla moom daf may inkiwal di ma sax mooy lipp lu may wax ak lu may xam moom ma koy inkiwal di ma ko sax di ma ko wax lu ñëwagul sax ak lu wëy yàlla moo ma koy sax di ma ko xamal moo tax mu ne sabata saxalal na lii ñel ma arusoo sax ka wala yëqin ak yëqin nga mooy wóor waaw ma xam ne doo dénki dénki dara danga sax wóor te lépp lu la yàlla di enkiwal mën naa doon lu wéy mën naa doon lu teew loo xam ne xamoo ko mën naa doon lu ñëw te lépp danga koy xam moo tax wan xaada woo mat na lii jëmee ci ma al ilhamu enkiwal ga wa talxiin ak saga xaada woo mat na ilay jëmee ci ma allahu yàlla maa loo xamee ne xaaba umb na añul waraa lii lii jox ma womatal na lii jox ma alhuda njubam ko usura asaari alquran womatal na jëmee ci man moom yàlla loo xamee ne ump na mooy nëbbuutu na wëlis mi def mooy kenn xamul ko ci ñoom waaye yàlla xëcc na jëmi njub muy njubug yonent bi ak saari alquran yi wàcc moom yëpp jox ma ko ilay qaada lahu ma xanil wara qaaba wa qaadalil huda usura xaada womat na ilay jëmee ci allahu yàlla maa loo xamee ne xaabu ump na anil wara wëlis mi defi wa xaada womat na lii jox ma alhuda njubam ko usura asaari alquran baaraka barkeel na li barkeelal na lii ñeneen fii laqali sama taw pas-pas bi wal maqaal ak wax yi wal fiixli ak jëf yi maxsuuman mbir moom ba doon ku ñu musal minal xoqaali ci maanaam pas-pasub làmmañ maanaam koo xam ne làmmañ dafa dotam kooku mu la yow xoqaal koo xam ne làmmañama dafa dafa dotam dégg mooy safaanu ñàkk pas-pas dégg nga yàlla barkeelal na sama sama pas-pas bi nekk ci man muy gëm yàlla gi wóor ak samay wax yàlla barkeel na ko. samay jëf yàlla barkel na ko yàlla musal na ma ci lépp loo xam ne maanaam doxam la mooy lam ñoo xam ne dafa fasu ma fasahut rabbi shrah li sadri wa yassir li mooy mooy xaqaal rek dégg nga des na kasara xayin gi des na ko maas des na ko damm boo ci baax na maxsuuman minal xaqaal maxsuuman minal xoqaal boo ci jàng na dégg nga kon loolu yàlla defoon xaraba daw na iblisu iblis li xayri nax fi daw jëm ci feneen fu bokk sama wàll dégg nga wayesta es dana muslu faw mi nax wi ci samay naxwu naxwu boobu mën nga firi naxwu mooy grammaire bi nga xam waaye nax wi gu mujj gi moom daw jëm ci feneen fu bokkut sama wàll ci jublu daw na waqit iblis daw jëm ci feneen fu bokkut sama wàll mooy waqit na daw te muslu ba faw ci sama naxwu naxwu mooy xasit yi muy bind rek te lépp da koy teg ci grammaire ndax Sëñ Tuubaa ku jekku naxwu la an naxwu wal arudu wal bayaanu lii sulbal wala bi oliba ayaan kon iblis day muslu ci naxu gi may bindee moo tax wayees dana muslu abadan ba faw mi naxu samay naxu saa bu gisee samay xasida day muslu dégg day daw rek du du du yooxu rek di daw tur si sama ngande ay seytaan gi dox sama diggante seytaan wala mën ay ak lépp lu yàlla tere ismatu baaxin mooy kaarangeeg yàlla mi fee sax ba fataru faatu amirin mo muy aji digle wanaax yi aji tere su fekkee am naa ngandaay gi dox sama digganteeg seytaane ak lu yàlla tere ba saytaane du ma jublu duma ko jublu luñ tere du ma jublu du ma ko jublu mooy kaaraange xasma gi ma yàlla defal ma dugg ca nga xam na moom yàlla moom nga xam ne moom ko defal mooy kiy digle tey tere la muy tere nag kenn du ma ci gis la muy digle rek ca lay sax nee na su fekkee am naa ngàndaay ngàndaay lii la am xasma ak yàlla saa boo amee xasma am nga lépp lu ab jaam di wut loo xam ne dox na digganteem ak borom ndax ñëpp luñ bëgg rek mooy mucc saa boo muccee rek sama borom musul rek mooy daka mos kon ku dugg ci biir kaaraange ak yàlla rek ndax nit ñëpp luñ bëgg rek mooy daw laqatu yàlla te daw seytaane kon nag boo amee xasma ak yàlla am nga lépp. mbokki Mafaatul Bichri ñu ngi leen di ñaan bala ngeen a àggale xasida googu ngeen abonné ci seen seen YouTube Ibrahima Dieng taalibe borom Touba ngir gën a mën a yaatal liggéey bi ba mbokki taalibe yëpp jot ci incha te bu leen fàttee bés ci kolos bi. bu ko defee bépp waxtaan woo xam seen dugal nañ ko si seen seen youtube rek ngeen mën cee jot incha allahu moo xam firi mafaatihul bisri la wala yenn ci diwaani yu demee ni diwaanu fulkul mason diwaanu xuraaniyat yi yeneen a yeneen incha allahu lam yan xu nii jublu mukk al yow ma tey jii woo baax du ak gannaaw tey jii kasaat lu ñuy wax yàqu mooy lamb marchandise moo xam ne nga xam ne tey masalan boo ko jaayut tey mu yàqu <laughs> am na ci xeeti lëjum yoo xamee ne mënuñu am ñaari fan wala ñett saa buñ ko amee danañ soppeeku kon mu gaaw a jar mooy doon sa arrangement ndax bu amee ñaari fan ak ñett rek moom dana soppeeku moo tax ci lislaam sax boo faroon lu mel ni loo xamee ne tey masalan jën la dañu bëgg nga sarax ko ko te sans sax bu borom fii ñi nga fay ko ko. su fekkee borom doo feeñ nga ne ko ah saraxe naa ko waaye yéene naa la yol ba bu daa ko ree baax na mu mu fiite yol ba a fekkee ah, man nag sama jën laa bëgg bëgguma yol ba yow nag jëndal jën jox ko su ko defee jël yol ba fooy fiite ko gis nga lislaam nu mu mandoo bu dee nag loo xam ne moom du gaaw a yàqu lislaam dalaa digal ne yonent bi nee na na nga ko téye at di ko laajte di ko laajte rajo jàkk ya tele yi fu ne laaj ko boo demee bu wóor na nag ah lii nag mën naa am du feeñ nga daal di koy nag dogo saraxe yéene waaje yol ba même itam waaj bu fii ñaatee na man xaalis laa bëgg li ma réer laa bëgg yow du tee da ngay lijjanti xaalis fay ko maanaam nga jël yool ba fii fiiti ko yow su fekkee dafa ñëwoon ko ah man de waaj bu fii ñaatee na la man xaalis laa bëgg li ma réer laa bëgg yow du tee da ngay lijjanti xaalis fay ko maanaam nga jël yool ba fii fiiti ko yow waaye nag su fekkee dafa ñëwoon ko ah man de saraxe naa ko ndax téye naa ko at xaw ma kenn ku ko moom léegi saraxe naa ko waaye dama laa yéene yool ba bu la neexee man ngeen di da d'accord ci loolu waaye moom bu bañee da koy delloo xaalisam bu ko dee fare yoon bi gis nga lislaam nu ah, kon lépp loo xam ne far nga ko bu doon loo xam ne wóor na la balay suuf mu yàqu te danga koo far danga koy saraxa ca sens yéene yéene ko la yool ba su feeñee na laa ah, danga may fay su defee nag nga fay ko daal di fiite yool ba islam diini bi mandu la lam yen fu nii du ma jublu ko alyoma tey woo ba xadoo ak gannaaw tey kasaat ak lambu fii ku lima ci lépp loo xamee ne dégg bii xa jaay naa ko ko moom yàlla an yee mu jëlee ko ci man aw fasad wala ak yàqu marchandise mën naa lamb sax te du yàqu am na marchandise yoo xam ne dañuy gaaw a yàqu léeg-léeg moo xamee ne maanaam du gaaw a yàqu de mën naa at te du yàqu te du soppeeku waaye nag darul dem moom danaan dé danaan danaan déng rek fi mu nekk kenn du ko jënd léegi boo déglu ci commerçant yi da nga ko xam léegi dañuy gis marchandise boo xam ne mën naa toog at kenn du wax waa waa lii ñaata lay jar waaye day toog benn bis am ku ñëw ramas ko jënd ko gis nga kon lam yanhunil yawma wa baxdoo kasax fi kulli ma xanniya bi aw fasad du ma jublu mu ko tey ji ak na tey ji ak lambu ci lépp loo xam ne jaay naa ko yàlla mu jëlee ko ci man loolu du du ma lu mukk lamb maanaam du lamb daal wala mu yàqu ndax yàlla lu yàlla jënd ba noppi moom loolu moom du lamb du yàqu ku ne xam na ko lam yaxturu du toq mukk al yawma tey ji bi baali man ci xelum koo xam ne xuleex bindees na ko taw jiihu durrin jëmale ay loot lii di ko jëmee ci man wala man du caagin koo xam ne yan xalis def na ko bind loolu waxin la waxoon naa lan xulix lu muy mooy ko xam ne fiiñalis na ko wala man yan xalix mooy ko xam ne des na ko fiiñal ndax yàlla moom lu mu doon bind yëpp bind na ko léegi moom li fi xew rek mooy dogal yi bis bu ne ak la yàlla de fiiñal bis bu ne tey ñu ne lii fiiñ na loolu fekkoon nañu bind ko ba yàgg day doog a fiiñ dogal bu yéeg doog a kon maanaam koo xamee ne yàlla fiiñal na ko wala lu mu yàgg-yàgg dana judd yàlla fiiñal ko ci àdduna kooku xelam du xelaan mukk muy jël ay lord ko jëmale ci man sëñ Tuuba lam yaqturu du toq mu ko al yawma bi baali ci xelum koo xam ne xullix bindees na ko mooy feeñi lees na ko moom yàlla ci àdduna ñëpp di ko gis taw jiihu durrin muy jëmale ay lor di ko jëmee coon wala man du caag ne koo xam ne yéen xelif dana ko feeñal ku yàlla feeñal ak ku mu feeñal gu yëpp kenn amut xel xalaat di jël ay di ko jëmee ci man kon loolu ko yàlla defal la nafa dàq na sayaatiinal wara sayaatiini mbindeef li xëyri ñi daw jëm ci kudul man man yàlla mi nga xam ne saane ñoo ñoŋalal na ma boppam wa ab xaatamu saxal dàkk lii ñu la may yaa sama xont sayaatiini mbindeef yëpp gis nga mbindeef kon dafa am ñoo xam ne ay seytaane jëmmi seytaane ne formu seytaane lañ bu ñu waxee seytaane bu ñu jëfee bu lekkee lépp seytaane la yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na nit dana dugg ci néegam du wax bismillah seytaane bokk ak fanaan fa dana jax sox soxnaam du wax bismillah seytaane ànd ak moom jaxasoog moom donc jooju bu juddoo seytaane lay ne moo tax seytaane léegi bëri na de nit dana dugg ci palaasam te waxut bismillah lum jaay mas ni mum jaay wërsëgu seytaane waaye du wërsëgu yàlla wërsëgu seytaane dafa am wërsëgu yàlla am waaye saa boo ne di jaxasoog soxna wala dugg sa néeg lu la ci mën a fekk rek wërsëg la wala wu bay ko ci yàlla mu jox la ko marchandise mooy jaay ne bismillah loo ci mën a amee wërsëgu yàlla waaye boo waxoon bisimilah rek wërsëgu seytaan la loolu doy na waar loolu ñu bëri duñ ci bàyyi xel kon daq na sayaatini mbindeef yëpp ci daw jëm ci ku dul man yàlla mi nga xam ne ñoŋal na ma waaye mu saxal li nga xam ne sama xont muy sama xewal heure bu ne danaa bi ma portésee moom yàlla dafay saxal sama xewal ci waxtu wu ne di jox ay xewal asxaba dàq na rabbi sama borom li si waaye mu jëm ci ku na man alxasana lépp luy njàqare xol wasaane te ñoŋal na lii ñeel ma àll ci la nga xam ne it tasanaa mooy dama koy tëqale ilayhi di ko jëmee ci moom sama borom dàq na mu daw jëm ci kur man lépp luy njàqare man doon ma kuy jàq yàlla din na ci man ak njàqare waaye ñoŋal na mooy portesal na ma aaral na ma nëbal na ma la nga xam ne dama ko tëqale jëmee ko ci moom ci ay wiital ko ci ay taggu ko ci ay melom yu rafet ci ay turam yu rafet sarra bégloo na rasulullah yonentub yàlla bi xend sabadi fi géej gay aji fuur xatti sama mbind moo ko bégloo waraada te tàggata na lii ñel ma ala xeddaa noon ya kël mus bi di ni koy aji fuur ja dégg nee nekkee ca géej ga sama mbind yi ma fa doon bind da doon bégloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mboolem noon ya fa nekkoon yëpp ak géej ga yëpp maanaam suñu borom tàggatal na ma ko al musbit gu mujj gi mooy géej gi fa ndox ma gën a bëree yàlla tàggatal na ko ba du ko mën a lor xam nga buñ la tàggatalee géej même buñ la sànnoon ci géej sax géej gi mënu laa wan mënu laa lor ni suñu borom tàggatale woon safara wu yónni ci Ibrahima bi ko lakk noonu tàggatalee sëñ Tuubaa géejug Mayomba gi ba mënut koo lor a xaasani la naanu min kay di man xala wasaara kanaareel xilil yi baxru Mayomba comme nañ defoon Ibrahima lañ ko def la moo tax ma sara bégloo na rasulullah yonent bi yàlla bi inda sabari fa géej géej aji fuur xat yi sama mbind moo ko doon bégloo foofee waraadata tàggatal na li ñam alain daa samay noonu waaw noonu yëpp ak géej gi yëpp ki bi leen tàggatal ba kenn mënuma cee lor mooy sama bind <laughs> kenn mosu gis loolu wa jaxtu jëmale naa lil muxtaari ca ka ñu tànn ka indal yëma ji indal yëm yi fa lëggum géej ga bu saaratan mbég moo xam ne loxoo ñeen ko bi xëyri xam yi turu njàqare moo xam ne daf may muur nga géej boo ci nekkee fokk danga danga jaaxle même rek ñuy dugg ci gaal yi loolu xam nañ ko maanaam seen xel dëgg-dëgg na mu war a dalee du ko dal xëy na nag la leen yóbbu rek mooy xër gu ëpp bëgg a teral seen juru góor ak wu jigéen nangam amuñ tara yaakaaruñ benn liggéey amuñ luñ jàpp waaye bu ñu dugg ci gaal yi rek seen xel am na lu muy xalaat maanaam boo ci dugg moom fokk moom sa xel dana xalaat da nga yeggam doo yegg boo yeggee moom da xam ne sant yàlla alhamdulilah loolu yàlla defal la waaye ñu bëri bu ñuy dugg ci gaal danañu am xalaat ne mën nañu bañ a yegg te loolu mën na leen dal ci yoon wi sax. kon jëmale naa ca ka ñu tànn ka fa lëggum géej ga lëggum géej mooy ba tey fa ndox ma gën a bëri dégg nga dégg nga loo xamee ne mbégte la ca moom maanaam tagg yoo xam ne mbég lay jural yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne benn njàqare du ci topp moo tax wajjantu jibril lil muxtaar ca ko ñu tànn kay ndal jëmi fa lëggum géej ga bu saaratan ak mbég la xoo ko bi xayri xam ne turul moo xam ne da koy muur lépp ay mbégte la ñeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam xatu wa jaxtu jëmale naa ilaa ilaahi jëmee ci sama borom laahi ak wéetalam dégg wa ak tudd goo xam ne nawaxat nangos na ko nee na jëmale naa fa sama borom subhaanahu wa taala ba ma nekkee ca géej ga fu ma toll di ko wéetal ak di ko tudd tudd goo xam ne ak wéetal goo xam ne lépp da ko nangu mada tàllal na lee ñen ma al alimu yàlla muy aji xam ji wal xabiiru tey aji dañ kumpa ji xendale da ba ma nekkee fanoon ya maalo loo xam ne doonoo yées na tadd biiru di ko settantal ci li nga xam ne moo di xel xalaat mooy loo xam ne maanaam ku amee bopp rek amee xel mën a koo xelaat ba di xam ni muy toll ak ni muy mel moo tax mu ne tëbb na ma mooy jox na ma yàlla muy aji xam ji te xam lépp te fekk yëpp tey aji diñ kumpa ji nga xam ne dara nëbbuut ci moom ba ma nekkee ci noon yi jox na ma loo xamee ne ku yore bopp ak tànk rek xamoo ko loolu mooy firi bi maa loo xam ne doonoo kawe na moo yiis na tadbiru du settantal kenn mënu ko settantal di ko xam kon li ko yàlla jox ca noonu moom kooku kenn xamu ko nafa ani jëriñ na ma alwaasi yàlla muy aji yaatu ji xendal waasi ba ma nekkee fa géej gay aji yaatu bila asan ci benn lor wa jaade te tabina lii ñal ma bi saatian ca leer yay aji jolli nee na suñu borom mi aji yaatu ji ba ma nekkee ca géej gu yaatu ga géej gi xam nga dafa rëy nee na jëriñ na ma jëriñ goo xam ne benn lor toftalug ca àndug ca mukk waaye tabe na ma leeram yoo xam ne heure bu ne ca géej ga day jolli madaliyal anwaara xend sulumaat dégg nga wasaali mi nam naka faani sadamaat xasid ak ay samini law ande jéewal noonu la ko waxee ba tey xaada li kalkaleeri daa wasaatiya inna kitaabati naka sama mbind yama doon bind la dal li noon yi da way soxor muxjilatul amwaaji aji gàccal la duusu géej wal fi am ak kuréel ba nee na bind yama doon bind ba ma nekkee ca noon yi nga xam ne ñoo di al li am li am mooy safaanu fi am li am mooy noon yoo xamee ne dañoo fasanti ko wa xulluubuhum satta mooy ñoom ñëpp ñu soxor lañ fi am mooy kuréel boo xam ne dañoo bokk bëgg-bëgg ànd dégg nga mu ne sama mbind yi ma doon bind fa noonu yi dawee coxor aji gàcce la duusu géej gi ak kuréel ba kuréel ba nekkoon ci ñoom ñëpp maanaam gàccal na leen moo ne sama mbind ya ma doon def fa noonu yi dawee soxor aji gàcce la duusu géej yi doon bëbb ak kuréel ba yëpp déedéet na leen ñoom ñëpp kon gisam mbind bi nu mu féetee kaw lépp lu dul moom kitaabati sama mbind xam lu ci lu jiitu ba ma nekkee ci géej gi la daa ahlul kitaab fu ñuñ ahlul kitaab xujjatun aw lay la lii ñixal ma maaniatun woo xam ne aji fegal la ma minal ataab lépp luy xeeti yeddaange sama mbind yi ma doon def ba ma nekkee ca waa ahlul kitaab di ko ca tukki ba nee na moo dox sama diggante lépp luy xeeti yeddaange aw lay la woo xam ne lépp lu yeddaange moom ma ko dumaal moo ma ko daqal sabat joñ na kitaabati sama mbind bi tardil waxidi ci dàkkuk yàlla muy kenn ilaa siwa saatiya mu daw jëm ci furut sama jëmm kan la joñ mu ne kulla jaahili bépp aju wéet yàlla nee ne sama mbind joñ na waaye nag yàlla mii kenn moo ko dàkkoo ci sama mbind kon mbind mi kat luk yàlla moo ci nekk mbindum sëñ Tuubaa nee na nag sama mbind ci boppam moo joñ waaye ci dàkku yàlla muy kenn moo joñ mu daw jëm ci furu sama jëm képp ku wéddi yàlla sama mbind moo la moo la dàkku joñ la nga daw jëm ci kuréel man waaye ci kat luk yàlla léegi ilaa siwa intaha dana jublu ilaa si waa naq yi daw jëm ci puru sama wàll maa loo xam ne laa yëliix du yell mukk bi naf yi man ci dàqu ka nga xamee ne xuwa moom xaliix aji yeyoo la bi sukuree samay cant nee na dana jublu daw jëm ci feneen fu bokkut sama wàll lépp loo xam ne du yella rek ci sama wàll mu ñëw ci samay wàll bu jëwee sama wàll man sëñ Tuubaa du fi yella baaxul muy ñëw ci man yellut muy ñëw ci man loolee dana daw jëm ci feneen fu bokkut sama wàll waaye nag ci dàqu yàlla mi nga xamee ne dafa yeeyoo moom samay cant cant yi ma koy ci boppam da ko yeeyoo da ko yelloo moom borom bi subhaanahu kon sëriñ bi cantam yëpp yàlla rek ko yeeyoo keneen yeeyoo ko ilaahi ñeel na yàlla moom mi sama borom abadan ba faw kulliyati sama lépp mu koy lim benn par benn samay ak samay wax wa xamali ak samay jëf wa lépp ñeel na yàlla ba faw mu tudd ci yéen gën a ràññee muy wax pas-pasu nit ki nga xam ne boo ko amee am na lépp bu ko ñàkkee ñàkk na lépp sama pas-pas du mos a fecceeku day fasu heure bu nekk di wéetal yàlla gëm ko te di ko kennal samay wax du génn yàlla samay jëf du génn yàlla sama yéene du génn yàlla lépp jox na ko sama borom kafaani ya fegal na ma al na way yëjji ña qabla an naxaw lu jiitu seenu jublu janaa bee sama wàlla wat ma ana dal na xal sama xol yàlla fegal na ma ñiy mokkee ñiy yëjje yàlla fegal na ma leen ñoom ñëpp laa daa ñuy jub sama wàllu jóg di ma attaqué si rek yàlla fegal na ma leen moo tax sama xol dal na ci ndax suñu war na ko ay kemaan yégal na ko ci ay maqaamaatul aynil yaqin maqaamaatul muqinoon yëpp suñu borom yégal na ko moo tax xolam dal dégg nga xaada mat na lii ñeel ma asirra mbóot almasuuna madamuñ dinc madamuñ ñoŋal saakira mbir moom muy aji cant ku liiti sama lépp man yàlla meex na xam ne wo matal na di jëmee ci man almasakira mboolem xeeti cant yi sama borom subhanahu wa taala jox na ma mbóot moo xam ne da koo dinc da koo ba noppi teg ci nag sant sama lépp gërëm sama lépp lu bokk ci man sëñ Tuuba yàlla may defal mooy ki xam ne womatal na mboolem xeeti payooru cant yëpp xeeti cant yëpp seeni payoor moom yàlla womat na ko jox ma ko moo tamit ne xaada womatal na lii ñun ma assira mbóot ma al masuuna ma rabu ñool saakira mbir moom muy aji sant ku kan moo ko def mu ne man yàlla mi nga xam ne xaada womatal na lii jëme ci almasakira mboolem xeeti cant seen payoor yëpp jox ma ko allahu yàlla xayru raasixin mooy gi ngën ci aji wërsëgëri wa naafi'a tey ngën ci aji jëriñe wa xayru baasitin tey ngën ci aji tàlli aji tàllal wa xayru raafe tey ngën ci aji yëkkati kuy wërsëgële ko ci gën yàllaa ci gën kuy jëriñe yàllaa ci gën kuy tàllal wërsëg yàllaa ci gën kuy yëkkate yàllaa ci gën yépp jaam bi dana ko def moromuk jaam waaye lépp kàttanug yàlla da ciy dugg jaam bi mën koo def nit ki mën naa jox jaam bi muy lekk ci wërsëgam nit ki mën ay jëriñ ci njëriñ yi ko yàlla jox doomu aadama nit ki mën naa tàllal ci la ko yàlla jox ci wërsëg mu di ci tàllal doomu aadama di ko ci xajal nit ki mën naa yëkkati daraja jox mu di ci yëkkati ay nit waaye benn bu ci nit ki bu ci kat nu ko yàlla duggul rek nit ki mëntu defal kenn daa kon moo tax ñu lu waaye def rek suñu borom subhaanahu wa taala boo ko yëgee ak boo ko yëgul ci baatin ak ci saay kon yàlla mooy kii ngeen ci aji wërsëgale tey ngeen ci aji jëriñ ji tey ngeen ci aji tàlli aji tàllal tey ngeen ci aji yëkkati gi ngeen ci aji yëkkati yi wa kafaani te fegal na ma kullu ma lépp loo xam ne lam yardahu gërëmalut ma ko lii ñeel ma wa allama te xamal na xal bi sama xol mooy xal boo xam xal xol boo xam ne dafay xam yàlla yàlla moom lay communiqué di waxanteeg moom te fegal na ma lépp loo xam ne bëggul ko ci man rek fegal na ma ko mooy lu ma gërëmalu rek dindi ko ci man waaye xamal na sama xol mooy xol bu gindeeku loolu mooy euh, xol boo xam ne dafa xam yàlla mooy xol bu gindeeku radat radat radat maanaha janaa asal bi xayri raddin lii wasaa min ka nasam radatta danoo na mooy delloo ma maa lépp loo xam ne na xëë jubluxoon na jinaa bi sama wala fil asal ci biit asal ba dara amagul ba mu dara la ko danoose ne sëñ Tuubaa de lu waroon a wàcc ci moom ci adduna yëpp fii laa koy danoose bu demee ci adduna dara dootu wàccati ci moom ci xayri musiba moo tax radda radatta danoose na maa lépp loo xam ne na xaa jubluxoon na jinaa bi wala fil asal ci asal bi xayr radin ci lu muy dellu si lii di jëm ci man te wasaa lii nasal wàcces na ko min ko mu bàyyi ko fa yow yàlla sunu borom ca asal la danoosé lu naroon wàcce ci man ci kaw suuf ci xeeti musiba yëpp mu danoosé ko te dootul dellusiwaat di jëm ci man mukk te ne lu yàlla wàcce lu yàlla wax la ba noppi lu yàlla dogal la ba noppi loolu am na ba kon nag yàlla na yàlla fayal sëriñ bi te fayal nu képp ko xam ne àndatoon nga ak sëriñ Tuubaa xaada allahu maxtaar lahu